li ñu ci xalaat nag mooy li ci luwaa xalaat li ñu ci xalaat mooy li ci ñi nga xam ne ñoo demoon jàngi xaanuun xaanuun mooy droit ñi ko demoon jàngi ba tënk ko ba saytu ko ba ñëpp nangul leen ko lañ ca xalaat li ma ci xalaat mooy li ci waa Saalum xalaat li ma ci xalaat mooy kilifay diine yi liñ ci xalaat li ma ci xalaat mooy population bi nga xam ne gis woon seen démb te gis ko tey li ma ci xalaat ma ne li ma ci xalaat mooy dama ne ku ne war ngaa xam ne ku jàngul droit sax war ngaa xam ne buñ la waxee ne la ñaari mandat yu cinq ans moom la tënk ci président bu nekk ko war a am. waaw dama leen di laaj kan moo amagum ñaari cinq ans ñaari cinq ans kenn amagu ko benn cinq ans lañ tàmbali. mane ne ma ne ma ne il faut ñu arrêter di polémiquer di wax ci loo xam ne polémique la mane ne mandat président Macky sàll pour ndax war naa amaat beneenam déet nañ wax ndax am na benn ñaar benn lay soog a tàmbali ndax ñoom droit ñoom loi ñoo wax ne ñaari mandat yu cinq kenn mënu ko weesu. waaw ñaari mandat yu cinq ans kay jeexal na wax ku bëgg jarul droit mbir mi jarul droit mu des nag ci moom ak ñun ndax ñun ndax moom ci boppam moomul boppam pour war a taxaw di wax naan candidat la duma candidat ay nit a ko jiitaloon ay nit a ko wóolu woon teg ko kon ñun ñii la war a déglu du moo ñuy wax fu ñuy jaar du moom du mom du mom mo ñuy wax fa lañuy jaar parce que ñun ñoko ko won porter ko té ko teg ko sun dënn yi di daw ak mom waaw daqé wuñ sonu wuñ ñaquñ fatigué wuñ waaw lu kay lu tax keneen ku ñu tànnal keneen bu ñu kenn tanal fu ñuy xol ak fu ñu jëm mané mané droit lim wax lérna li ci dess kay moy mom waye droit mom lim wax kenn waru ci cee wax ñaari mandat yu cinq ans képp koo xam na jiitu nga moom nga war a am waaw référendum kay ku ne xam na ne ci biir mandat bi dañ ko defee boobu mandat kay moom kenn waxatu ko boobu mandat kenn waxatuti mi ngi soog am premier mandat de cinq ans ndax dafay jël deuxième am wala du ko jël loolu moom la engagé ak ñun ñii waaye du kenn ku ñuy tànnal fu ñu ñun nag fii ci Saalum ñun fii ci Saalum dama ne li may wax. ci turu région de Kaolack yëpp laa koy wax ma ne ci ñun ñëpp la engagé région de Kaolack beneen région bu xam ne li ñuy wax loolu nga gis na nga daal di génn balaa gën a yàgg nga wax ko mu leer ma ne waxaguñ ci ndax dana nekk candidat ak du nekk candidat waaye dañu ne première mandat bu président Macky Sall de cinq ans ngi nii soog a tàmbali am six sept mois tey loolu laa bëgg ñu leeral ko mu leer. ndax day jël beneenam wala doyul di ko jëkk du ko jël loolu moom am na droit pour seet boppam xool ndax daf koy jël ak du ko jël débat amu fi commentaire amu fi